ci sëriñ Alaaji Malick si Dabaax sëñ Maodo ak i di nuyu say rakk yu tedd yi fi teew yëpp suñ Cheikh Tidiane suñ si Dabaax sëñ si bu sëñ Mansour sëñ Ababacar si bu sëñ Alamin sunu nijaay Abdou Modou Ndiaye ah sama xarit suñu sëriñ sëñ Mansour si Jamil ak mboolem njabootu sudage Malick si waaye dinaa si ràññee sama yeneen ñaari xarit muy sëñ si Mansour ak sëñ Moustapha si Alamin di nuyu mbokk maire Tivaouane sëñ Demba Diop si Nous sommes soxna président président conseil départemental Nous ah, ah, sommes honorable député au conseil conseil économique responsable YEP, directeur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 gisuma ko fenn ci àdduna bi loolu nag moom Seydi Hadji am na ci wàll wu rëy rëy rëy kon ñu ngi koy euh, ñu ngi yokk di ñaan suñu borom yokk leeram ci fale mu nekk di ñaan yàlla mu teg loxo ci xalifaam bu baax bi nekk fii di suñu wayjur di suñu xarit di sëñ Babacar Sy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 dañaan yàlla ñu yàgg dafi daje te jàmm rek di am ak xéwal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa hamid